yal nañu yàlla may mu jeexe noonu ci jàmm parce que yàlla moom noppi na ba pare yàlla xam na ba pare ñi nga xam ne ñooy dem assemblée te ñun ñëpp ay mbokk lañu kon euh, nañ ko rafetal ku ne xam ne rek devoir nga am pour ñëw accomplir ko boo ko defee ba pare nga dem toog sa kër et puis bu subaa c'est tout le Sénégal tout le Sénégal qui gagne comme noonu la nag vraiment encore une fois ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla jàmm ji mu commencé.

il fait pas très chaud certainement ils vont à leurs occupations mais Inch'Allah, je euh, voter oui élection législative tu sais solo parce que euh, c'est le parlement et le parlement c'est beaucoup mieux les députés sont les représentants du peuple kon ñi nga xamante ni ñooy représentant du peuple ñooy dagaan baatu askan wi pour dem taxawal leen euh, fële nga xamante ni mooy assemblée nationale pour wax li nga xamante ni mooy seen i yitte ak seen i soxla kon jàpp naa ni euh, te moom mooy deuxième chambre bi nga xamante ni moom moo topp ci euh, li nga xamante ni mooy le le pouvoir exécutif donc vraiment loolu moom lu am solo la di ñaan yàlla vraiment député yi nga xamante ni dinañ génn ci lii nga xamante ni mooy élection yi nekk vraiment de des députés yoo xamante ni c'est de vrais représentants du peuple euh, dem taxawal askan wi fa nga xamante ni fa la ñuy wax waxee di joyanti li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy seen i soxla te ku na xamante ni le rôle du député c'est quoi au juste c'est tout simplement d'aller proposer des lois voter des lois mais surtout contrôler ce qui est l'action de la non dama élection législative ni hmm. donc c'est des élections de représentation hmm. contrairement à l'élection présidentielle hmm. mais d'ici l'après-midi donc euh, le tour va connaître une évolution je n'en doute pas donc dina quoi message de paix de calme et que pour rappeler que Tivaouane a toujours été une ville pilote n'est-ce pas dans le cadre des élections d'accord merci merci beaucoup madame Thank you.